Euh, asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñun waa réveil des consciences dañoo dellusiwaatoon rek euh, ginnaaw bi ñu waxtaanee seetaat la politique bi nga xam ne moom la Macron ne daf koy dellu si Afrique muy une politique boo xam ne nëbbuwu ci làqtuwu ci muy une boo xam ne dafa dëppoo ak nouvel ordre mondial bi nga xam ne mooy une troisième guerre mondiale forcée par l'Occident Macron nee na je reviens en Afrique avec la politique de De maanaam na De doon doxalee ak la De Gaulle bëggoon nee na ca loolu la bëgg taxaw Macron dem na ba ne euh, islaami Sénégal ji l'islam bi nga am taxaw loolu nañ ko en 1895 à Saint-Louis waxtaan ak ceddo yi waxtaan ak euh, këri diine yi ba am entente ca jamono yooyu De Gaulle ñëwaat Afrique def une délégation boo xam ne ñëw nañu Afrique waxtaanaat ak yi parce que ci jublu ci indépendance lañ jëm moo tax dëggal di kaatoon yable fi ay ndaw rencontré kilifa diine yi fi nekkoon rencontré ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñu ne ay chef de canton rencontré ñi nga xam ne ay nit leen ñoo xam ne euh, am nañ wàll ci société bi waxtaan ak ñoom dëggal ba déggoo déggoo bu wér waaw bu ngeen fàttali ko ndakaaru ah, dañ daan julli une heure wala midi et demi yooyu dañ julli mais tubaab bi dafay dikk ne leen léegi dañuy changer heure bi ngeen di julli deux heures et demi ah parce que ñun dañuy sieste loolu am na waaw ah, bu ne xool wasifa gii ñu def wasifa yi tubaab bi da ko aaye woon wasifa def naa ne après la troisième la deuxième guerre mondiale sax ci lañ ko reprendre wala ñu doon ko def clandestinement mais tubaab bi da ko aaye woon dëggal nag bu fekkente ne lam décidé woon moom la nar c'est-à-dire créer euh, l'état du Fouta Djallon c'est-à-dire euh, les pays yi nga xam ne ñoo nekk du Sahel euh, ñu regrouper leen boole leen mu benn état boo xam ne da mën a contrer l'état Mandinka loolu moo doon projet parce que Sékou Touré sonaloon na ko Macron li nga xam ne wax na ko nëbbu ko je reviens en Afrique avec kii la politique de De Gaulle na De Gaulle daan defee noonu lay defee yebal na Macky Sall ci kër Serigne Sepp xamal leen ne leen bëgguñu beneen diine ci réew mi budul diine ja nga xam ne moom lañ d'accordoon ak De Gaulle nee na la ngeen d'accordoon ak maam leen loolu la d'accord bi nga xam ne dañu joxe indépendance fii au Sénégal tous les marabu ñëpp a taxaw ne bëgguñu indépendance le gouvernement daw à l'exil Senghor nekku fi Mamadou Dia nekku fi Lamine Gueye nekku fi mu benn complot boo xam dañ ko def pour exploser para loolu lépp xale yi war nañ koo xam amul benn kilifa diine gu taxawoon Sénégal ne dañu bëgg indépendance yéen bu ngeen ko xamee wax leen ma ko te Macron mi ngi enregistrement yi ñu doon ñaanal sëriñ si eh, De Gaulle yàlla na nga gudd fan De Gaulle yaa baax De Gaulle bul dem De boo demee ceeb dayu rey ñu vidéo yi disponible na te dana génn kenn boo ko waxante dëgg De Gaulle na dem daan def jël ay tubaab yu ñuul yabal leen Afrique ñu yàq bopp africain yi loolu la Macron jël Sibeth Ndiaye Sibeth si bet qu'une c'est une bêtise ab dof la nit la ko weex ñu peintre ko peintre bu ñuul mu dikk jàkkaarloog africain yi dafa waxee dof africain yi dañoo yeewu lawoon bu jëkk ca dugal sebet njaay loolu amatut nekkal nit te ñibbisi ci kër gi yii lay Macron di waxloo da weer sa bopp histoire dikk ko weddi la weddi la ñun defuñu la nga xam ne suñu maam nangoon nañ ko duñ ko nangu suñu maam yi moo nañ bay jënd gerte jaay seen gerte ci ay faux billets les libanais dañ daan jóge Liban cinquante quatre cinquante six cinquante sept defar seen i faux billets bu ñu ko jënd lépp gerte jaayaat ko tubaab bi am cash daw ñibbi Liban loolu lépp am na fi CFA bii ñun du xaalisub dara c'est une monnaie nazie attribuée aux Africains muy lu illégal au niveau international ñu di ko muñ ba suñ doon yeewu xam naka la ak numu dans toutes les universités en France suñu doom ay jàngal tubaab yi Sibeth Ndiaye revient à la maison ce circuit bi arrêté ko na dëggal defoon na ko suñu maam nax leen Macron bu lu utiliser du sotti na Senghor defoon ànd ko ak i ufit bu wàññee ba trahir Afrique ba nekk ci coono bii moo ne ci xolu africain yëpp Sibeth Ndiaye revient à la maison lii nga xam ne nag moo am nouvel ordre mondial tubaab bi alal ju jeex la ci dépense tubaab bi dama depuis Henry Kissinger depuis Henry Kissinger tubaab baa ciy liggéey y a des universités en France yow ay sociologue ñoo fay daje boobaak léegi ëpp na quart de siècle ak i psychologue ak i docteur ak i communicateur ak i technicien di xalaat ci nun parce que seen lépp seen lépp tubaab yi ci nun lañ ko wékk sans l'Afrique tubaab yi duñ añ duñu reer duñ mën a jóg pour confisquer nos biens d'accord daañu bàyyi éco bi dem lañ bëgg waaye nag parité bi dañ koy wéer ci xaalisu Europe pourquoi xaalisu Europe nun magi jëmm lañ war moom suñu xaalis lu ci yoonu Europe Europe yi mu suñu réunion ci seen xaalis nun ban fekkee ko wala nu wax ci ban retrouver ne ay faux billets ngeen ñuy jox ay faux billets muy CFA bi ndax CFA bi kenn ku ne xam ne du xaalis kay du bon la Hitler ko defaroon pour yéen tubaab yi tey ngeen jël wékkunu ko mel na gafaka dafay dakk CFA bi mësta baax ay faux la damay ñëw leb la nga dugg ci néeg bi print ay faux jox ma ma dem bu ma la ci bëggee fayat ci xaalis bi ma joxoon nga ne ma non bu ma ci fay parce que xam nga ne baaxut loo bëgg ma fay la nga ne diamant or phosphate ak i ressources ak pétrole boobaak léegi ñaata at la. te lu ma jaay dangay ngay xaalis bi tas da ngay nangu genn wàll gi tee bu ma la lebaatee nga jël ci la ma la ma la dénkoon lebalaat ma bu manqué nga print loolu dafay dakk sebet waxal Macky waxal ki lay yabal Macron na ko africain yi dañoo jóg di ubbi seen i bët seen bopp fees dal ak xam-xam ñu conscient nax yi jeex na takk africain yi bu fekkee am na seen banque centrale ak ressources yi nga xam am nañ ko pétrole gaz diamant or uranium ak lépp ñu am zircon bi képp zircon bi képp mën naa tax bis bu ñu xëyee print ay milliards tasaare ko ci marché bi parce que am nañ pétrole am nañ or te daanu ko jaay droit de print out boobu droit boobu moom la ñu bëgg a xañ moo tax bu ko benn benn parité fixe boo xam ne day dëppoo ak xaalisu Europe gars yeewu leen lànk leen li ñu décidé nar ko yoonu tubaab ne wut bu ci tubaab dugali kàddoom c'est une affaire qui concerne les Africains et pour les Africains te ñun am na niveau ak xam-xam ak matériel bu doy sëkk buñ ko garanté dama ne bu amee suñu banque centrale di contrôler suñu xaalis dama ne uranium ba ca Guinée Guinée bauxite ba ca Guinée uranium ba ca Niger pétrole bi ci Sénégal mën naa tax man naa tax ñu pompe poche africain yi ba mu fees dell ak xaalis parce que tubaab yi daañu dikk jënd si ba ñoo ko soxla léegi nag bu fekkee ne ñoo waat contrôle bi day mel ne CFA bi yàlla. te fexe boole Afrique mu doon benn mu réew te génn ci tubaab bi tubaab bi ne boolewu leen ci ay pour pourquoi mu dugg ci suñu mbir ñu ko entrer Macron n'a rien à dire ci noonu pour pourquoi ñu di ñàkk pourquoi nga bëgg maa ñàkk ñàkkal sa baay wala nga ñàkk say bokk mais nous sommes des fous loolu amatut lañ mënoon amatut di ko jël sëñ tubaab yi di yóbbu jël fi ab xalifa mënutut a il faut nag ñi nga xam ne ñoo jiite réew yi doon président ñi doon ay kilifa yi diine ñu mat sëkk na seeni maam meloon sax am bañ lu néew néew te bàyyi poñatum àdduna bi te bàyyi luxe bi te bàyyi man a man a man a sa maam sa maam sa maam non yooyu lañu war a dakkal télévision bi ñu naan yàlla yonent bi lislaam nangam na àdduna bi soppiku na kenn ku ne bu fekkee ne ab jullit nga te jullit mat nga war nga mën a jàngal sa doom lu mu jaamoo yàlla di jël télévision bi def ko éducation matière d'éducation ubbi ci bopp nit ñi utiliser ko pour cette nouvelle technologie bi nga xam ne mooy ubbi nit ñi la science artificielle actuellement noonu mooy pousser monde bi ñun soxlaatuñu ay ustaas ustaas yi génn wàcc leen télé toog seen kër toujours même leçon la la wax daaw mu ngeen di wax ren vous nous a merdé yow ustaas la génn leen wàcc ci tali bi génn leen ci télévision bi bàyyi xale yi yéeg indi doctrine scientifique bi mathématique physique lépp ñu di ko dóor ci télé bi xale yi mën a jàng seen bopp ubbi ko ñu mën dugg si cib si compétir àdduna bi ngi def yàlla xaala law xaala law vous emmerdez arrêtez vos ustaas là plus vous entendre borom yi xam-xam lañ bëgg dañoo bëgg mango ji ñu génn ci ay comprimé dañoo bëgg lépp luy énergie nekk ci biir ñu nocc ko man ko delloosi ci askan wi seen tarix yi lem leen ko ngeen téye ko na ko seen i maam tëddee ko tëggee woon yàq ngeen ko demetut noona te jamono yi bokkul arrêtez vos conneries vous nous dañ koy wax ah. chips yi chips yi boo nee dans les pays scandinaves ñu ngi koy développé nga dem China les chips laa ñu koy développé nga dem un peu partout dans le monde ñu ngi avancé en matière de technologie ñu bu ndëgë nii ñu tàllal su ndoxo bii di yelwaan ah ak yàlla yàlla yàlla yàlla bu nous emmerdé ku am ku nekk ak jullit nga ba am 40 ans 40 ans nga am jullit ba mu nekk 40 ans jullit te mënu jàngal say doom yow nun jaamoo yàlla sa lislaam matut arrêter la télévision ñu jël ko utiliser ko ci cette science artificielle jël la télévision utiliser ko pour ubbi bopp doomi aadama yi jël laa télévision utiliser ko pour libérer les populations pour nous tympaniser avec woo gàmmoo ki màggal yu ñàkk xorom yi toroxtaange gi ñu torox kenn mosu koo gis fan yi li ngeen tëdd ci néegi ñëmewul ne génn tubaab bi taxaw suñ kaw di gaanuwaay te kenn mënut a jàpp ci génn bi parce que amuñu xam-xam sans maam sans bàyyi sans maam sans maam bu nu il faut la vérité le seeni maam defe woon bu ngeen ko doon defee noona askan wi ànd ak yéen seeni maam dañoo bañoon lank lànk joxonteeg tubaab bi mais ngeen nanguloo ngeen def loolu waaye yéen ñi bi ñu joxe indépendance yéen fi nekkoon seeni maam néewu fi mais yéen ñëpp d'accord lu woon ci indépendance bi vous avez rejeté l'indépendance du Sénégal et cette fois vous continuez à nous si ci affaire tarixa vidéo yi danañ génn vidéo yëpp daañu génn maa ngi ciy xeex lu ma man pour ñu publier ko àdduna bépp dëkk ko ku newoon ci tribune ba ñaanal dëggoo la da nga feeñ ngeen xam ne jàpp leen ci dara la seeni maam sasoon sosoon bu ngeen ko continuer woon kon xëy na réew dina am indépendance ndax seeni maam ñu ci bare bare bare bëgguñu woon tubaab bi malgré tubaab bi leen ëpp woon doole waaye yéen da ngeen seey da ngeen a seey ci le luxe da ngeen a seey ci poñetum àdduna da ngeen a seey ci mën a mën a da ngeen a seey ci oto bu rafet da ngeen a ci ay jongoma koo ci dem këram am na ñeenti jongoma yoo xam ne kenn pattu ci kenn la fa ñëpp ñaari nopp lañ yor arrêté ces conneries ten dellu ñëw liggéey ten dellu liggéey ànd libere Afrique ni ko Cheikh Touré bëggoon mën naa nekk ni ko Cheikh Anta bëggoon mën naa nekk ni ko docteur Nkrumah bëggoon mën naa nekk ni ko Olympio bëggoon mën naa nekk Gamal Abdel Nasser Muammar Kadhafi ba ci Thomas Sankara vous nous emmerdez un gars comme Sonko Sonko quelque chose de rare kilifa diine di ko daw kilifa aada yëpp di ko daw ñëpp di ko daw c'est pas sérieux kon femme bii nekk Paris bëgguma xam turu rek cette bêtise cette bête là Sébét Ndiaye cette bête revient à la maison yii ngay wax du waxi dara mu ustaas yi nekk Sénégal bëgg ñoo rey ci rajo bi télévision bi yéen a yem ak foo intellectuels yi nga xam ne ay diplômé lañ nekk ci télévision bi suba guddi ngoon di tararar tararar tararar tararar tararar ba tey réew maa ngi ñu soox luñ añee amuñu ko une université vide empty une université empty bies science zéro xale yu taxawaalu une université qui forme que des chômeurs un gouvernement buy sàcc ak at appelé jóg leen ci seen bopp ngeen libéré seen bopp d'abord bu ngeen moomul seen bopp du ngeen mën a jaamu yàlla nit mënta am beneen borom bu dul yàlla bëgg a déclarer ne ab jullit la wala leneen waxu leen dëgg vous n'êtes pas des musulmans un musulman day dund charia te dund leen charia constitution bi li ñu alxuraan newu ci code de la famille bii tubaab bee leen ko defaral Vous, êtes des, avez des francs-maçons à la de cette nation. Et vous ci yàlla yàlla yàlla suba guddi ngoon arrêtez vos conneries te ñëw jël pikk ak peel dajji réew mi gas beneen fondation pour créer un autre Sénégal ak beneen islam boo xam ne bokkut bii nga xam ne du dara lu dul maanaam maanaam maanaam maanaam sans maam sans encore une fois maa ngi jéggalu bu baax a baax a baax am lu ma naqari rek doon un Sénégalais boo xam ne ci jàmm lañu war a nekk doon un sénégalais boo xam ne sama njaboot waruñoo daw di génn réew moomu loolu un sénégalais boo xam ne un patriote qui croit à Cheikh Anta Diop kan boo ko jóg am la bañ kan jël suñu bët teg ko ci Serigne Touba Mbacke kan jël suñu teg ko ci Serigne Touba Mbacke amul Lamine Dramé kan jël suñu bët teg ko ci Cheikh Omar Foutiyou kan suñu bët teg ko ci kilifa ñoo fi nekkoon ku ci demee noo Alassane Baal ku ci deme ne xaali Amar Fall kenn jël suñu bët te ko ci jéeri joor ndeela ñaan wuy libéré le Sénégal la Kayoor ci vingt deux ans képp la ko fekk kenn jël suñu bët ak Yossitien Diatta kenn jël suñu bët teg ko ci ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon am lu doon bañ Abdou Kader Kane kenn jël suñu bët teg ko ci ñi nga xam ne ñoo fi mas a nekk nga xam ne bëgguñu dund Afrique te njël suñ bët teg ko ci Ousmane Sonko mii parce que li muy bañ moom la Cheikh Touré daan bañ li muy bañ moom la Cheikh Anta Diop di bañ te li mu bëgg. Bonjour chers internautes, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube OSR Monde et activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.